numéro 2, euh, Mohamedou Diop, le numéro 14, euh, Alpha capitaine de cette équipe, euh, Bouba Bouba Soare, qui porte le sort numéro 15, et Amadou Cham, le porte, qui porte le sort numéro 10. Sur le banc, nous avons El Haji Ndiaye, le numéro 12, El Haji El Mansa, le numéro 3, et Momar Mané, le numéro 13, Ibrahim Yanka, le numéro 11, et Pape, euh, Youssouf le numéro 16, Mansouri Diallo, le numéro 9, et Abdoulaye Sissé, le numéro 20. Voilà euh, pour ce qui est de la formation de cette équipe euh, d'espoir de, euh, de, de, de, Et pour le moment, les deux équipes sont égalité, 0 but partout. Et maintenant, pour ce qui est de la composition de l'équipe de l'Eboukou, nous avons Ibrahim Alay, le numéro 18, euh, Adama Fall, le numéro 1, euh, le numéro 11, Baba Carigno, le numéro 3, Issa Sek, le numéro 4, Morsal, Morfal, le numéro 9, Alou, Géo, Alou, le numéro 5, Cher Tigan le numéro 14, Omar euh, Samb, le numéro 8, Assandoy, le numéro 10, euh, Banarandoi, le numéro 12. Sur le banc, nous avons Mbaye le numéro 13. Cheikh Tigandoy, le numéro 6. Euh, Omar Sall, le numéro 17. Euh, le numéro 20. Et Papa euh, Babou, le numéro 15. Voilà pour ce qui est de la formation des deux équipes Abdoulaye et que pour le moment, les deux équipes sont, qui, sont, qui, sont, sur le terrain euh, sont à égalité. Zéro but partout entre Espoir de Nyakorop et l'AS Lebouki de Délé. En tout cas, c'est une très belle affiche à voir euh, euh, le mouvement, à voir déjà l'entrée de jeu de ces deux équipes. On, comprend par là, nous allons nous apprêter, bien nous asseoir et suivre une très belle rencontre car ce n'est plus comme euh, la première, comme on le voit déjà, parce que là, la possession est de mise. Comme vous le voyez, le marquage, est serré déjà. C'est un jeu agressif. Waaw waaw. ñu non, ñu leen ko faral di defee ça euh, euh, deuxième heure entre Lebougui et Espoir L'espoir Espoir ASC hein, pour l'instant Assez le gi assez le mo Espoir ASC mon sol bleu blanc ASC le gi sol zone euh, vert zone faute coup pour l'instant pour ASC le gi nous sommes doxal ba léegi bal du le di féliciter waa Lébu gi encore une fois dañ leen di ñoom ñoo di gunge waa douzième gaynde waa Lébu gi ah, di leen féliciter encore une fois dañ leen jox ah, pour ñu gunge li nga xamante ni ñoom ñooy waa douzième gaynde mu ngi noonu Andour lébu gi ak AC ah, Espoir waa lébu gi ñoo bal noonu di doxal waa Espoir mbokk nañ bal bi bal bi delluwaat waa Espoir numéro 5 bi moom moo jox numéro 12 bi numéro 12 bi nu muy def centre na ko attention centre bi non baaxul baaxul la centre bi baaxul la corner la numéro 15 bi moo ko centré après mu dévier ko numéro 15 bi euh, moo ko centré mu dévier ko waaye waa Espoir ñoom ñooy tóor bal noonu numéro 15 bi lu muy def centré na ko góol bi génn na jàpp na noo jàpp baaxul attention Espoir tulli ko bal bi génn 0-0 pour le entre les deux équipes entre Lebougui ak ñi nga xamante ne Espoir ñu doxal arbitre nee na jeu coup franc pour l'instant tiré na coup franc ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Espoir bi à partout Lebougui ñoom ñoo sol vert jaune ñi nga ñoom ñoo espoir sol bleu blanc capitaine bi moom mooy bal bi noonu lu muy def si àll ba la koy dóor wala lu wax si orzo orzo pour euh, lancer euh, espoir mais waa lancer lépp gi euh, ñoom ñoo bal bi noonu góol bi jox na ko numéro 15 bi numéro 15 bi kan la téye si bal bi si devant jox na ko numéro bi numéro bi waa perte numéro 10 bu espoir am mooy bal noonu nu muy def door na Simeta numéro 2 bi ah, moom moo door noonu bal bi jaar si ah, waaye ba léegi ba ah, waa lébu gi ñoom ñoo bal noonu waaye waa espoir delloo waat nañ ko. ba léegi ñu ngi doxal numéro 17 bi moom mooy ba jox na nga numéro 2 bi numéro 2 bi ñàkk na ko numéro espoir moom moo léegi numéro 9 bi espoir waa léb gi ñu espoir léb gi ñu ngi espoir AC léb gi ñu ngi doxal muy def coup franc coup di siyaaraat di bëgg waada sama mbokk téléspectateur yi roog gisaguma la dugal Aysata Diallo gisaguma la dugal Espoir waa Espoir ñu ngay def góol bi génn na jàpp na bal góol bi génn na jàpp na ko Espoir laka ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa lébu gi ñu ngay doxal waa lébu gi ñoom ñooy rabal noonu numéro 12 bi moom mooy cuus bal bi noonu wax na ko numéro 4 bi numéro 4 bi lu muy defa changé na semi waa cuus ba léegi numéro 8 bi moom bëgg bal bi bëgg bal bi léegi waa Lebougui ak waa Espoir ñu ngi doxal waa Lebougui ak waa Espoir ñu ngi doxal numéro 4 bi mbëkk na bal bi 4 mbëkk na bal bi jox na numéro 2 bi numéro 2 bi ah, jox ko excentré bi excentré bi ba léegi joxaat ko numéro 2 bi ay numéro 2 bi mu ngi doxal mu ngi doxal waa Espoir jox na numéro numéro 10 jox na numéro 7 bi numéro 7 bi lu muy def espoir la mu ngi def attention Kara mu ngi noonu waa Lebu gi ak waa Espoir numéro 4 bu Lebu gi moo yor bal bi noonu dafa ah, jox na ko numéro 9 bi numéro 9 bi perte na ko bal bi génn na bal bi ah, génn na bal mu ngi génn a ah, 6 mètres mais 5 mètres 50 lay doon voilà mu ngi doonu ba léegi góol bi góol bi jox na ko bi numéro 4 bi jox ko numéro 10 bi numéro 18 delloo ko ko lu muy def numéro 2 bi coup franc coup franc pour ASC Espoir rapidement joué mais arbitre oo na la kaay teg bal bi nga joué ba léegi waa Espoir ak waa ASC Lebougui gi ñu ngi doxala toujours 0-0 ñaari équipe yi ku si nekk yaa ngi doxala aca mu ngi noonu ASC Lebougui ak ASC Espoir ba léegi góol bu ASC Lebougui jox na ko numéro 4 bi lu muy defa lu muy defa zéro si kawam numéro 17 bi moo yor noonu waaye ñàkk na ko ba léegi waa Lebougui ñoo yor bal waaye waa Espoir nanguwaat nañ ko attention attention numéro 12 numéro 15 ah, bu attention muy def attention loupé na bal bi loupé bal bi ba léegi waa SS Sparta numéro 10 bi moom mooy ballon lu muy defa centre na ko waaye néew na ko numéro 15 bi numéro 15 bi numéro 2 bi jox numéro 2 bi day centré wala mu joxaat ko numéro 7 bi numéro 7 bi delloo waaye ba léegi waa Sparta ñu ngi doxala numéro 14 bi jël na ko capitaine bi mu jox ko numéro 10 numéro 18 changé ko mu jox numéro 5 bi attention arbitre bi dara amu fa jeu la góol la bu ASC Lebougui moo yor bal noonu waaye numéro 15 bi ak 14 moo yor bal bi jeu si numéro 10 bi ak numéro 10 bi jeu na waaye dara amu fa jeu la dara amu fa jeu la dégagé na bal dégagé na bal bi jox ko numéro bi 14 bi jox ko daanu na ba léegi waa léb gi ñoom bal noonu waa léb gi ñoo bal noonu di doxal góol bi jàpp na bal bi góolu bu ASC Espoir moom moo jàpp daal bi noonu war a waaye dégagé góol la jox na ko numéro

numéro bi 9 fi mbokkal na ko numéro 7 bi numéro 7 bi joxaat ko ko ba léegi ñoom ñoo dem ah, numéro 10 bi moo yor bi noonu jeunesse devant goal bi génn na goal bi ko waaye dégagement na dégagement bi ah, si milieu bi la waaye ba léegi ñoom ñooy doxal la numéro 4 bi mooy doxal noonu numéro 4 mooy doxal noonu ASC Lebougui ak ASC Espoir ñoom ñooy doxal la waa Lebougui ñoom ñooy doxal noonu ba léegi 0-0 numéro 8 bi nu muy defa numéro 4 bi nangu na bal bi si moom 5 mètres la génn 5 mètres la génn mu ngi noonu ba léegi am match bi 0-0 entre Lebougui ak ñi nga ñoom ñooy waa Espoir toujours 0-0 waaye waa Espoir ñoo yor bal noonu numéro 7 bu ASC Espoir moo yor bal noonu doxal jox na numéro 14 attention delloo na góol bi góol bi delloo ko numéro 6 bi numéro 6 bi lu muy def lu muy def day dégager bal bi jéem a

waaye waa Lébu gi teg nañ bal bi jeu nañ ci kanam muy def ah, mbëkk ndëkka mu dem ci kaawa waaye numéro muy def ah, numéro 8 bi moo ñàkk bal bi noonu numéro 8 bi rek benn action 4 bi tegal na ko wala contre ak léegi ak waa ñi nga xamante ne ñooy ASC Espoir ba léegi 0-0 waaye gisaguma supporter lébu gi attention waa Espoir lu muy def jox na ko numéro 10 bi numéro 10 bi lu muy def ñàkk na ko 15 bi dégagé na ko mu dem si àll ba waaye léegi ñoom ñoo bal noonu di doxal waa ASC Espoir ñooy doxal waa Espoir ASC Espoir ñu ngi def ba léegi jox na ko numéro 7 bi jox ko numéro 10 ba léegi. attention ba léegi waa espoir bi bëgg a baawul attention góol bi jàpp ko góol bi jàpp na ko waaye gisaguma ñi nga ñoom ñoo supporter lébu gi gisaguma supporteru espoir la mun ngeen sibile nit ñi di gis la fi ngeen mun ngeen sibile may gis ngeen kontaan may kontaan sa xol di sedda seen xol di sedda Aisatu, maa ngi lay di la di siar Rock Mamadou Diouf maa ngi lay bëggee encore une fois bëgg naa ngeen wax ma score bi ñaata la ku xam score bi ñaata la neexal bu dun laa tegal la képp ku gaña score mi-temps entre ak Espoir neexal bu dun di la Oh, olo wala 2-1 wala kan mooy gagné attention ba léegi waa espoir numéro 14 bi ni muy def passé bi ak numéro 11 bi ñu ngi xëccoo xëccoo la waa lébu a waa espoir waa espoir ñu ngi doxal waa espoir ñu ngi waa espoir ñu ngi si kanama jëlew si devant numéro 7 bi mooy ba attention dóoram dóor bi baaxul la dem si alaba daa dóor bal bi bal bi jaar si côté yi waaye rek ba léegi Mar Cissé nee na 0-0 la premier mi-temps Mar Cissé moo wax loolu nee naa leen sama neexal laa yor képp koo xamante ni wax nga ma score bi premier mi-temps bu fekkee score boobu ama neexal mu duun mu ngi lay tooga Mar Cissé nee na score bu premier mi-temps 0-0 la Mar Cissé fan la ne lébu gi wala fi nga xamante ne moo espoir fan la nekk loolu laaj naa ko Mar Cissé wala mu ngi noonu ASC lébu gi ak ASC nga xamante ni ñoom ñooy Mar nee na premier mi-temps 0-0 moo ko wax premier mi-temps 0-0 joxe na li nga xamante ni mooy afisam premier mi-temps 0 maar boo ko waxa espoir maar bu espoir maar maa ngi nuyu waa espoir di leen bëggee bu ja tamit maa ngi lay siyaar ya tamit Ousmane Faye maa ngi la siyaar gorom 2 Ousmane Seye Ousmane Faye bu gorom 2 maa ngi lay tension gool bi nu mu génn baaxul malheureusement arbitre bi Couvre, s'y met, torse le tirer. génération waa Lebougui Awa wa ñi Espoir ñu ngi doxal toujours jere bi partout entre Lebougui ak Espoir attention lu muy def récupéré naka coup franc coup franc voilà mu ngi noonu Ousmane nee 1-0 pour kan Ousmane Ousmane Faye 1-0 pour kan voilà mu ngi noonu AC Lebougui AC Espoir ñu ngi doxal attention Lebougui door nañ bal bi góol bi gën a jàpp bi moo gën a merci beaucoup Marcisa nee ma préparé neexal bi waragul la waragul match bi jeexagul la 22 minutes moo demagum 22 minutes moo demagum nga ni ma ma préparé neexal bi waaye dem na numéro 2 bi moo yor bal noonu defa centre attention faute coup franc coup franc Sanga ñoo déggoo coup franc mel ni lañ dugaloon da kaa bu jaar ci loxoy góol bi bal bi dugg ci biir camp yi waaye ba léegi waaye ñi nga xamante ne ñooy ASC Lebougui gi ah, bu ASC Lebougui gi ak ñi nga xamante ay ñooy ASC Espoir ah, toujours 0-0 ah, on va jouer Ousmane Faye bu ASC lebih gi maa ngi lay siyaar voilà mu ngi coup coup franc pour ASC Espoir coup franc pour ASC Espoir coup franc pour ASC Espoir ñu xool coup franc bi dóor na bal bi bal bi jaar na sax oh malheureusement

arbitre nee na ko changel bal baaxul espoir ba ñaar ku lak lébu gi sol personne yi ngeen di gis noonu ñaar ku rab ñoo xamante ni ñoo espoir sol bleu blanc waaye waa espoir ñu ngi doxal tous tous tout ça pour AC Le Bougui. Joue avec crédibilité, joue avec méfiance, joue avec les bulles, même s'il y a des... Tout ça pour AC Le Bougui waaye bal tous nañ ko. tous nañ ko ba léegi bal mi ngi daw Le Bougui ak ñi nga xamante ne espoir numéro 10 bu espoir mu ngi doxal ay numéro 9 bi nangu na ko jox na ko numéro 10 bi.

Pour l'instant, jëwagum nañ 25 minutes Je suis ndam dikul 0-0 waaye waa Lebu gi ñoom même tous noonu numéro 12 bi numéro 12 bi moom mooy bal noonu numéro 12 bi tuus na bal bi muy defa jox na numéro 11 bi numéro jox ko numéro 10 bi numéro defa lu defa day centre centre na ko bal dem na góol bi jàpp na góol bi jàpp na ko bi jàpp na ko waaye numéro 2 moo yor bal noonu jéena ci kanama numéro 5 moo jé bal ci kanama jéena ko numéro 17 bi ñàkk na ko bal nañ ko

tous pour AG Lakale numéro 15 bi muy def espoir encore une fois numéro 14 bi capitaine bi jël na bal bi jox na ko numéro 5 bi numéro 5 pour AG Lebougui mu ngi mu ngi dem waa AG Lebougui ñu ngi ba léegi ñu ngi dem coup franc tous Nous revenons dans l'ère de champ de jeu, mesdames et messieurs, ici au stade El du jour, pour cette deuxième rencontre pour les qualifs des demi-finales. Il faut rappeler déjà une équipe a déjà écopé de son ticket de qualif pour euh, les demi-finales. Entre Aïsé Aïsé, qui a déjà son ticket. Espoir ah, a ñoo déggoo moo fi dóor ki nga mooy Espoir de Lac 4 bi à 0 amul benn werante Taka jàppandoo ko tu ko ñoo ko mat sëkk waaye ñoo déggoo fii lay ku gagné c'est entre ASC Lebougui gi ASC Espoir dal Espoir kooku lay am demi-finale waaye ba léegi match mu ngi daw ñoo déggoo ñoo déggoo espoir ñu ngi doxala ñoo déggee espoir ñu ngi doxala numéro 8 bi moo bal noonu mu koy jox mu koy jox changé na ko waaye contre na ko capitaine bi moo contre bal bi waaye ba léegi numéro 7 bi moo bal bi noonu jox na ko numéro bi góol bi génn na jàpp na ko góol bi génn jàpp ko mu dégagé mu dem si adversaire bi waaye numéro 8 bi moo bëgg bal noonu bal bi demaata si nga xamante ni mooy numéro 15 bu Espoir waa Espoir ñu ngi doxal waa Espoir ñu ngi doxal numéro 15 bi Espoir na numéro doxal centre naka centre naka numéro bi attention centre baaxul dañ ko centre numéro 7 bi ah moo tëpp mbëkk bal attention attention corner euh, pour l'instant corner euh, pour l'instant attention dégagé na corner bi fa la jëm waa ba léegi waa léegi ñoom mooy balla waaye waa espoir nangu nañ ko si ñoom ah. amul dara joué leen waa lébu gi ñoo yor bal noonu waa lébu gi espoir nangu na ko espoir ah, numéro 10 bu espoir moo nangu bal bi noonu numéro 8 bi numéro 10 bi lu muy defa ah, kan la koy jox jël na ko mu dalla si bopp numéro 2 bi waaye ba léegi waa lébu gi bal noonu ñu ngay waa lébu gi ñu ngay dem bi ëpp gol bi génn na jappal bi gol bi génn jappal bi golu espoir mo génn jappal bi Amadou Bala waye ba legi numéro 10 moo yor bal bi numéro 10 abou espoir moo ko jox numéro 14 capitaine capitaine joko 15 bi 15 bi lu dafa jox na ko numéro 5 numéro 5 bi delloo ko ba legi attention occasion manquée corner corner oh là oh, mu contre ka oh waaye joueur bi tëdd na suuf gaañu joueur bi tëdd na suuf gaañu

tous, euh, encore une fois. Oui, vous l'avez bien dit. Euh, mais il y a une domination, mais une domination stérile. Une domination stérile de la part de. ba léegi nag euh, ñu ngi si fii Fall Inco li ma leen di chaque jour rek information neetaan fal moo leen koy mën a jox ngeen kay amé direct fi le mbir mi tàngee te fii la xoyom-xoyomee nee naa leen ku abonné wul ci Fall Inco abonné woo ci kenn. à chaque jour mun ngeen am en direct fi nga xamante ni mooy Falnco Falnco lay doon ba léegi Falnco ngeen am noonu waa lébu gi ñoom ñooy doxal noonu astafra attention ak coup franc coup franc pour ASC mooy espoir a fini de siffler une faute en moo génnoon capitaine bi capitaine bi jox ko numéro 10 bi numéro 10 bi delloo ko joxaat ko mu ñàkk ko waaye numéro 12 bu lébu gi moo yor bal noonu ba léegi ñu ngi waaye numéro 10 bi moo yor noonu mu ngi dawa mu ngi ko ñàkk na ko. espoir ñu ngi doxal ASC Lebougui gi tunu nañ noonu waa espoir delloowaat nañ ko ba léegi ñoom ñoo moomee bal noonu waa espoir waa espoir ñoom ñoo doxal noonu numéro 4 bu espoir jox na ko numéro 15 bi numéro jox ko numéro 2 bi waaye numéro 2 bi delloowaat na ko tulli na bu ASC Lebougui gi moo tulli bal noonu waaye toujours zéro zéro entre lëb gi ak nga xamante ni moom mooy euh, euh, espoir jeegum euh, nañ vingt cinq minutes à trente cinq minutes à temps pour moi ndam demul ndam dikkul kenn dugalagul sa morom dara voilà mu ngi noonu c'est quart de finale de zone 11 voilà mu ngi attention attention góor bi génn na góor baaxu la ba léegi nañ ko ñu ngay daal tulli ko voilà mu noonu trophée yooyu ngeen gis ay meilleur joueur la meilleur buteur si euh, quart de finale bi trophée meilleur joueur trophée meilleur buteur quart de finale bu mel ni musu fee am lii mooy quart de finale quart de finale mun naa am trophée fii ba finale nag dañuy am ah, trophée demi finale dañuy am trophée quart de finale am trophée finale fii ba finale lañ leen yóbbu trophée yi am ah, meilleur joueur l'homme du match l'homme mu ngi noonu quart de finale entre Lebougui ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Espoir ñu ngay doxal numéro 14 bi Espoir bëkk na mu dem si jour bu ASC Espoir Espoir ñu ngay doxal numéro 2 bi nu muy def jox na ko numéro 8 bi numéro 8 bi nu muy bi Lebougui génn bi ñàkk ko ñàkk na numéro 10 ñoo nangu bal bi noonu waa Lébugi ñoo waa Lébugi a ah, waa Espoir ñu ngi doxala waa Lébugi Espoir ñoo yor bal noonu waa Espoir ñu ngi doxala waa Espoir numéro 8 bi Espoir attention coup franc coup franc da ASC Espoir coup bu ASC Espoir comme li ma leen ko jour nee naa leen quart de la sànq am na trophée bi ñu leen wanoon mais trophée yooyu ay trophée l'homme du Massi la moo ñi nga xamante ni ñooy l'homme du Massi yu nekk si quart de finale mais tamit ah, dañ leen ko tàmmaloon moom lañ leen di defal même quart bi aussi tamita ah, demi finale bi loolu lañ leen naral moom lañ leen di defal mais naa la ah, mbur mi tàngee te si fàll lay xoyam xoyamee képp ku bëgg seetaan li di nawetaan 100 pour antrek damal demal fal ni nga seetaan antrek sa xol di sedd nga am lepp luy information masi si fal nga koy amee Fall lekk wóor voilà fal lekk wor nee naa la direct fal dara daaxu ko day am waxtaan day am li nga xamanteni moy amiasa day xam li nga xamanteni moy football tay dina am waxtaan dina am ambiance attention waa Espoir dóor na bal bi numéro 8 bi lu muy def ba léegi attention dóor na bal non tout ça dégagement de ASC Lebougui dégagement de défenseur ASC moo dégagé bal bi noonu génn tout ça waaye gisaguma waa Lebougui ak waa Espoir seeni supporters yi nga xamante ne ñoo toog ci kër gi mënoo ñëw stade ñu ngi nañ seetaan Falnco TV buñ seetaanee Fall Eco TV dañ koy am direct duñu fay dara gratuite lay doon voilà muy noonu lépp lu la rëcca lépp loo mënul gis ci stade bi boo ñëwee Fall Eco TV da nga koy gis gratuite direct la nga koy gis gratuite ba léegi waa Espoir waa lépp gi tulli nañ ko lépp gi ah, tulli nañ bal bi lu muy defa lu muy defa lu muy defa lu muy defa numéro 10 bu lépp gi moo yor baal noonu waa ji loolu la xa nee na numéro 10 bu lebu gi voilà Matar Cissé nee na premier mi bi 0-0 la Matar match bi jeexagul la la des na jeexagum nañ ca 39 minutes ta di additionnel la mais ñu arbitre bi ñaan lay joxe sa ala wa lébu gi ago ñi xamanteni ñom ñoy ñooy ya- wa espoir nee naa leen fi en toka den ke am live am diamond si fal enko TV kep ku mënul dem estata togal sa kër nga tapé fal enko TV boko tapé da nga am direct sa équipe bu dé football da nga am ambiance ah, yi sa ay sa ambiance da nga koy am lépp loo xamante ni sport la lépp loo xam football la si nawetaan bi attention attention waa Espoir ñu ngi dem ah, changé na jeu bi jox na ko numéro 7 bi attention numéro 7 bi lu muy mooy dóor bal bi noonu centre na attention ba baaxul contre attention doo léegi numéro a bu espoir moo yor noonu dóor baaxul ba léegi gi ñoom ñoo bi gi numéro 8 bi bi gi moo yor bal noonu doxal na ko numéro 4 bi numéro 4 defa numéro 4 bu ASC bi gi lu defa tey centre oh là là oh là là marché bi metti na Matar Cissé maa ngi lay bëgg a gëm Matar Cissé maa ngi lay bëgg a gëm mais gëmaguma la yaa na fi premier mi-temps zéro zéro lay doon mais match bi jeexagul la mais man sama xalaat maa ngi lay bëgg a gëm mais gëmaguma la ñu xool bu ne piip piip piip si laa lay gëm ak arbitre tiirewul fin c'est premier mi-temps du ma waaye ba léegi ñu ngay centré na ko numéro bi tëm na na bal bi bu ko bal coup franc coup franc pour waa Lebougui gi ñoom ñooy noonu voilà coup franc la arbitre tiré pour euh, ki nga ni mooy ASC Espoir waa Espoir ñu ngay doxala numéro goal bi jox na ko numéro 6 bi mu jox ko numéro 10 bi numéro 6 bi def nañ si moom ah, arbitre nee na joué numéro joué jël carrément loolu de football la loolu de football la affaire de waane yi ngeen di def kenn santaw leen ko par des fois jour da boole loo xamante ni bokk si te football lañ waxa football lu mu voilà mu ngi noonu Fall Inco TV nga koy amee live am diamond ñan ci Andaka, Sen uh, seen Sen la doomu uh, DJ Mustafa moom mo len kay defal la moo leen la rapporte yi neex yi ngeen di nonu wala live am diamond ngeen kay amé si Fall Inco TV neena leena leen uh, ñi nga xamanteni ni yéen a toog seen biir kër bëgg a seetaan ma si mënoo leen ñëw esaat amoo leen jottu estade partage leen lien yi ñi nga xamante ne ñeen ñu def seen i moroma seen i morom defa ni ni ngeen di defa ñu mën a seetaan masi en direct comme ni ko ni ngeen koy defee ba léegi masi bi coup franc pour lancer lébu gi nanguwaat na ka waaw gi nanguwaat nañ ko waaye waa sport ñalaat nañ bal ba waa Espoir jëlaat nañ bal ñu ngi doxal bi génne baaxul waaye dawaan na si bal bi jàpp na bi. gardien bi génn daw na jàppaat bal bi waaye ba léegi match bi ngay on va jouer 43e minute ndam demul ndam kenn dugalagul sa morom dara entre Lebu gi ak ñi nga xamante ne espoir il reste deux minutes de ce plus attention et le but et premier but le premier but TAS Espoir bi marqué à la à la quarantième minute numéro 15 moo mu doy di dugg. oh là là oh numéro bi moo dugal bal bi noonu numéro bi moo dugal bal bi noonu oh là numéro bi ah, moo dugal bal bi noonu 1-0 pour l'instant pour Espoir bi marqué à la 40e minute Matar waxoon naa nee naa la match bi ma gis premier mi-temps bi am bi duma euh, mara duma sëriñ duma ñaankat deux minutes euh, pour temps additionnel euh, la deux minutes pour temps additionnel la deux minutes pour temps additionnel la deux ñu ngi doxala ñu ngi doxala waa espoir ale bu gi ñu ngi doxala bëgg égaliser centre na ko non centre baax attention nawal na bal bi waxoon naa la ka Matar Cissé nee naa la match bi ma gis premier mi-temps day am bi mi-temps day am bi naa la ka li tax ma wax loolu football bi dafa posé wu bal daw parce que football bu ame rek fa première bi am entre premier mi wala deuxième mi-temps ba léegi ñu ngay doxal waa Espoir numéro 7 bi mbëkk na bal bi waaye mbëkk la mu dem si numéro 6 bi numéro 6 bi dolli ka numéro 8 bi moo yor bal noonu waa Espoir ñoo yor bal noonu di doxal jox na ko bi numéro 7 bi dóor na bal bi waaye dóor bi moo ko tàkkale Farfarandoo moo ko tàggale waaye numéro 8 bi récupéré waat na ko waaye Spara récupéré nañ bal bi ah, numéro 10 mooy bal noonu jox bi capitaine bi jox na ko bi Orso Orso Orso Matara moo ne woon premier mi bi 0-0 la Ousmane moo waxoon na premier mi bi. un zéro pour Lebougui man ma waxoon na un zéro mais waxuma benn dugal dama ne premier mi-temps bi rek fin du match c'est la fin de cette euh, premier mi-temps Almette mu ngi el nee na yàlla moo wax li xew el yaa wax loolu merci beaucoup el <laughs> el nee na yàlla moo wax li xew kon boog yàlla moo ne woon match bi premier temps day am bi kon na premier temps espoir moo dugal la merci beaucoup voilà el nee na lébu dafay égaliser el moo ko wax gi dafay égaliser man waxuma ko el moo ko wax waaye dama leen di dig jote dig jote laa leen di jox si deuxième mi-temps entre lébu gi ak ñi nga xamante ni ñooy espoir dara du leen fi ump nee nee naa leen la tànk maa ngi ak ah yéen dara du leen suuf kon gars yi ñu jeex naani ndox ñëwaat. Euh, de cette euh, rencontre cette deuxième rencontre de cet après-midi euh, entre ASC